coowal suuf bi nga xamante ne xaw na doy waar quoi waaw tey moom ñu tànn leen leen poñ yooyu xam nga nar ci indi suñu xalaat euh, séddoo koog askan bi. yéeme quoi surtout jamono ju nekk nii xam nga dèjà ñu ngi si jamonoy corona xam la te ku wax corona xam nga mën nañu wax waxum set la ñu wax quoi xam la te dañoo nekk moom bi nga xam te ne moo gën a dangereux Sénégal xam la muy moment tàngoor ak moment nawet xam la te boo xoolee tamit ñu ngi créé waat beneen affaire bu gën a garaawaat Sénégal. mais ñi ngi indiwaat booy naan leen dem leen jàng li nga bëgg see boole coupure ndox àdduna mën nga mën nañ nangu lépp quoi sëf coupure ndox xam la coupure courant coow jubul quoi gars yi mën nañ ko buuxante xam la mais coupure ndox dafa garaaw xam la te problème mooy lu si gën a danger mooy gars yi gis naa des fois ñu indi ay ay camion citerne yooyu noonu xam la di ko may population bi mais camion citerne yooyu xam nga ni ñaata fan la toog amul ndox amul dara xam la ndox boobu noonu boo ko naanee façon faire bu ne mën na la ci dara xam na te Sénégal jamono ji fi ñu toll nii dañoo war a dépasser su coupure ay coupure ndox ay coupure courant Sénégal moo war a dépasser stade boobu stade boobu maanaam pour man c'est de l'ancien mais soo xoolee ñu chaque jour fu ñu fa la ñuy delluwaat soit bu ñu wax waxu courant dinañ wax waxu ndox te yaakaar naa am na yoo xamante ne population moom am na loo xamante ne moom pour le satisfaire au mois au moins ndox courant jàng hôpital dafa war a taxaw quoi après leen lépp ay travaux yooyu yëpp peut être xam nga mën nañu xool nu ñu koy sooxee wala nu ñu koy fayatoo mais ay ndox ay courant xam la ay jàng ah, ay hôpital yooyu waxuma la waxuma la Sénégal mais monde bi ñoo war a dépassé foofu monde bi moo romb moo romb foofu. xam nga moo tax moo toogee ba si ñu ne noonu dëkk bi dafa manqué ndox ñii ñi nga xeex ngeen ndox mais loolu dafa dafa garaaw quoi. dafa garaaw xam nga maanaam. waaw man la moom la njëkk a jaaxal. man manqué ndox ay manqué courant man xam nga moo tax may jaaxal. dañ nekk benn population boo xamante ne amul kenn ku ñuy may ndox client bi yow da koy servir ndox quoi moom day fay xaalisam moom day fay xaalisam ba pare non seulement du am qualité du am ndox buy am ndox tam du am qualité ndox bu baax xam nga man loolu daf ma jaaxal quoi comprendre mu la yow doo am ndox xam nga wala boo demee bay am ndox doo am qualité ndox bu baax parfois nga am ay ndox yoo xamante ne kenn xamul ban xeet lay xeeñ xam nga parfois nga am xam nga ndox yoo xamante ne kenn xamul ban cafka lay saf xam nga dëkk bu mel ni Sénégal dëkk bu toll ni Sénégal ñu bugg rëy làmmiñ di wax ay émergent di wax ay affaire yu kam yéen kenn xamul ah eau potable sax mënoo ko servir sa population xam nga te waa yi boo xoolee régime bi fi nekk nii depuis le début laa la wax ba léegi mënuñu réussir régler problème mu ndox dëgg la parce que ay temps ay njaay lu ay chaque fois day ñëw ñëw di répété en répétition non je me rappelle xam je xam la la dama wax loolu na may année boo xaw ma lan njaay moo tojoon xam nga kër Momar Sarr kër Momar Sarr gaa defar di defar di defar di defar xam nga dem nañ dem ba nee dem nañ ba nee sax ba nee sax ay ay tubaab lañu indi pour ñu defar ko dem nañ ba gëmloo ñu loolu xam nga man man surtout moment bi quoi moment bi moment tàngaay moment tàngaay quoi moment tàngaay nii moment tàngaay maanaam ñàkk ndox seddaay. tàngaay moo gën a garaaw moo gën a dangereux. moment tàngaay moment nawet. maam maam ñaari moment yi dafa dafa garaaw quoi moment yi moment yi dafa garaaw parce que déjà ba pare problème mooy yaa ngi bëgg booy dem jàngi est-ce que est ñu ngi imaginer yaa ngi bëgg booy dem jàngi jeudi le 25 yaa ngi bëgg booy dem jàngi léegi yow te instant yow ndox bu baax sax mënoo ko jox booy te yow nee nga corona ngay xeex te corona paludisme moo ko gën a garaaw fukki junni yoon te mu ngi si yoonam parce que nawet lañ nekk ko man si je me rappelle bien c' était vers euh, ah 2019 tout début alentour euh, de 2019 tout début fin 2018 début 2019 mu amoon coupure ndox bu fi amoon période boobu noonu mais ndox bi bu daan ñëw soit day xonk wala mu bleu te boo ko xeeñcoo day xeeñ saafara ndox boobu bu mu ñëwee non sérieux bi mu ñëwee waa gaale bi dañ ne duñ ko consommer après ñoom ñu ngi doon xoolaat ne sax peut-être ci yi la. mais bu ñu génnee demaat beneen kër c'était pareil si zone bi yëpp c'était pareil et c'était dans la zone des maristes non li ma wax dama ko gis je l'ai vu je l'ai vécu dama ko gis je l'ai vu je l'ai vécu ndox bu bleu ak ah, ndox bu xonk cuur mais mais xamuñ ko ci ay mais mais nag saafara li ñu koy bindee de boo ko defee si ndox day bleu moo tax ñu bëri naan est-ce que du ndoxum saafara ndaxte loolu tamit dafa per dafa tombé woon nag élection buy ñëw. man xam nga man lan laa gëm ah xam nga lan laa gëm ñun dañu jéemul avancer si benn côté comprendre la soo xoolee même installation tubaab yi fi nekkoon depuis suñu jamonoy maamaati maamaati maamaati maamaati maam ba léegi moom moo fi nekk comprendre pour man ah ñun dañu jéemul progresser si benn affaire li fi nekkoon rek nii la. man tey jii tey jii boo rombee tëngeej tëngeej boo rombee tëngeej. wala nga dem Saint-Louis xam nga nga dem Louga demal fu la neex li ngay bàkkoo foofu yëpp si tubaab bi nga ko doon maanaam tubaab bi ba mu defee lu muy def ba pare ñun jéemuñu def dara quoi suñu population mu ngi màgg yeneen dëkkuwaay yi ñu ngi amaat yeneen dëkkuwaay comprendre la mais état bi tamit non seulement dafa war a dafa war a prévenir affaire yooyu noonu xam nga mais dafa war a suivre tamit. aay nañu. waaw c'est man su may génnee rek moom mooy c'est ñun normalement waruñ am problème mu ndox. ndaxte Sénégal lu ko lu ko wër yëpp ndox la. Uh-huh. am nañ ndox douce am nañ ndox boo xamante ne ndox boo xamante ne mën nañ cee jëfandikoo am nañ ndox boo xamante ne c'est salé loolu dañ koy transformer ndaxte ay système la rek ay science la yoo xamante ne war nañ ko mën a def pour defar ko. Uh-huh. léegi problème bi moom mooy lan problème moom mooy c'est que y a une volonté politique boo xamante ne ci état bi la war a jóge état bi ci boppam moom moo war a mettre les mettre les moyens qu'il faut pour muñ pour ñu mën a am ndox à tout temps et à tout moment lan moo lan moo xew lii nii dundoon nañ ko taawu beneen entreprise bu fi nekkoon tey jii nii Sen'Eau moom moo fi nekk Sen'Eau détient 45 pour cent ci action ci ndox mi état du Sénégal détient 24 pour cent ci ci action ci ndox mi am na yeneen secteur privé yoo xamante ne détient nañ 20 pour cent ñii si euh, personnel am nañ am nañ 11 pour cent. soo boolee total bi total bi yëpp ci Sénégal ñu mun a am am nañ 45 pour cent 45 pour cent fekk ci 45 pour cent yu Suez am nii soo ko boolee normalement décision bu ñu war a jël état du Sénégal fekkee amul njëriñ ci population wala mun na yàq ci population war na cee teg droit de veto tey jii dafa leer de état du Sénégal war na mën a teg droit de veto ci ndox mi wane ne clairement ne moom fii la jëm. possibilité bii la war a mën a am ci ndox mi ñun population bi suñu population bii ni Sénégal war nañ mën a am ci ndox mi à tout temps et à tout moment je me que contrat bi Suez am au niveau du Sénégal contrat bi dafa war a durer pendant 15 ans autrement dit ñoom ñu ngi commencé le premier janvier lañ lañ jël lañ jël ndox mi ñu ñu dawal dawal dawal jusqu'à présent ñu am ay problème ndox ba ñoom sax ñuy jël ay ndox doonaan di koy distribuer tey jii warta mën a nekk yow soo jëlee marché boo xamante ne yaa yaa ngi yaa door a war a yaa ngi door a commencé da nga war a teg tous les moyens qu'il faut pour mën mun ñu mën am ndox ndox boo xamante ne yow di nga ñu rassuré mais yow yaa ngi jël marché bi marché bi duragul pendant 6 mois sax yow benn instant nga ñuy wane ne ne yow am nga ay difficulté am nga ay carence yoo xamante ne ci wàllu ndox mi te loolu maanaam joxut rassuré wul population bi tey population bi il a le droit ndaxte Serigne Mbaye moom moo fi taxaw wax ne ne moom dañoo def nañ lépp pour mën a am ndox waaw kon nag moom miy taxaw wax ak ñi moom dafa war a génn tamit wax ak nit ñi lu tax ku ndox di coupé te ndox warta coupé waaw 15 ans ñu war war war a dund ak moom lii nii ci lii nii lii xëy ñi neexut waaw. xam nga xam nga du ma doxoo xam nga Sénégal xam nga la mooy suñu à temps quoi sanctionné à xam la dañuy jox marché remplir loo ñu dàq la suba population bi dina comprendre quoi xam la mais chaque jour ñu nga xool ñu ngi koy réglé su suuf. xam te ñoom bañ leen laajee dañoo ne ñoom xamuñ ñoom bëleeg ñoom sax xamuñu la moo tax yéen secteurs yi di manqué ndox xam nga mooy li ngay wax cela veut dire yow dañu la jox contrat boo xam te ne remplir loo boo ko remplir deux jours trois jours dañ lay ne contrat bi na fi yem c'est que maanaam Sénégal fii ak juguñu di yi nit si lu mu def ah dëkk bi dina bëri coow chaque jour problème yi dañuy discuter parce que problème mooy da ngay gis koo xamante ne da leen kii munu bàyyiwul mais day jéem. muy sooxoo yow di sooxoo yow loolu da nga ko mën sooxee 15 ans xam nga léegi xoola c'est le cas dafa bëri de état Sénégal état bi problème bu mu gën a am ci àdduna mooy sanctionné doomu aadama problème bu mu gën a am parce que bu sanctionné amul dëggantaan ja kon instant yi nii instant yi nii instant yi nii ñuy wax nii wóor na yàlla lu mu tudd jàppale ma ku yor ceeb bi Mansour Faye ak sanctionné nañ ko maanaam maanaam dafa am ñoo xamante ne dañ état la war a sanctionné ba population am ci mi ngi def liggéeyam parce que dëgg ko quoi mën naa joxe mais bu ma la joxee tu n'as pas bien travaillé xam la dama lay jox note bu bon quoi wala tu n'as pas bien travaillé mais ñun mais ñun mais ñun dolli a mm-hmm. Mm-hmm. ba xalaat xam nga tamit parfois dama yàlla baal quoi si émission lañ nekk ay kilifa ñoo ñuy déglu mais parfois sa xol day day day naqari ba yow da ngay waxee patient quoi xam nga affaire boo koy xool ñu naa ah, askan bi gars yi dafa mel ni ñun ay imbécile la jàppee xam nga lu tax yow ya nga wax loolu importance mooy du ñu sanctionné ba pare moment bi nga xamante ñu ngi war a sanctionné ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi dundee deretu askan bi comme ça la ngi xalaat leneen ay honoraria ay honoraria di leen takkale di leen toqalaat ay ndombal tànk ay ay ay mooy comme li may li ngay wax quoi ay ay ay ay ay xaw ma président mm-hmm. xam nga mais gars yi dañu yàpp billaahi dañu yàpp te boo xoolee yow par parfois Papis day wax benn affaire du ma si xam nga day wax quoi du ma ak moom comprendre la parfois damay dem ba man sama xol day sot quoi parce que maanaam ñun maanaam ñun ban façon askan lañ quoi ñun tam loolu foog ñu xool ko na ñun dañu tey tey jii tey jii xam nga tey xam ñu ne ma bii lay jël si man la émission bi ñu ma war a jël si jotagul xam naa bii lay doon quoi comprendre lim la bëgg ñun non non que dafa yomb fii nii xam nga dafa yomb fii ñu naan ay da ngay appel à ma lan lan lan lu ñu jàppee ay Abdou Karim Gueye waa ay yu kenn xamul ak seen seen loi yooyu technique yooyu noonu comprendre la ñun ñoo nekk si suuf quoi ñun ñoo nekk si terrain ñun ñooy Sénégal bi si suuf ñun ñoo xam lan la askan bi dund dañu daan ñoo xam sax lu askan bi dund mais dañoo bokk ci askan bi koy dund xam nga bu ñuy wax ñun ñoo xam nañ xam xamoo ko parce que mënoo xam dara tant que dunduloo ko yow comprendre tey am na yenn affaire yoo xam te doo ko rafetlu comme Assane Diouf nu mu taxaw di di saaga nday président institution xam nga loolu doo ko rafetlu doo ko rafetlu mais soo mais soo dindee mais soo dindee la fait mu saaga institution boobu dindee loolu nga teg ko fee nga xool li muy wax li muy wax yëpp dëgg la xam nga institut du yoon mais tamit mais tamit ki ñu insulté tamit li muy def moo gën a garaaw Assane def parce que xam nga lu tax doonte institution la comprendre la doole état bi moom président de la république bu boobu xam nga te ñoom li ñuy def waxuma la waxuma la saaga population parce que yow xam nga campagne électorale yi fii lañu fekk man xam nga moo tax état bi fi nekk mënu ma leen baal Sénégal a fen lu tax leen baal dara lenn moo tax mënu ma leen baal dara dañ doon wax promesse électorale ñun loolu lañ ci fekk quoi dañu judd gars yi fekk ay koo xamante ne day dem campagne électorale def ay promesse électorale Macky moom moo nekk premier président de la boo xamante ne ah ay engagement la doon jël moom ay engagement la doon jël te lépp luy problème mu Sénégal avant ñu koy fal tudd na ko teg na si baaraamam kon xam na ko bu baax comme li ñu doon wax dafa mbapat dafa xam li xew quoi mais après yow doo comprendre lan moo tax ñuy dem ba ci biir muy demee nii. yow doo comprendre lan léegi même boobu moom moom moo la ko deux minutes. xam ne man lu may wax rek moom mooy c'est que l'état du Sénégal nous a ñun ñun ñoom ñoom ñun la ñun ñun lañu war a liggéeyal. ñoom l' état du Sénégal dafa war a liggéeyal la population du Sénégal ndaxte Sénégal moom moo Sénégalais ñoom ñoo fal le président de la République def na fi cinq ans def na fi sept ans au moins ak bii nii mu mu mu mu tàmbali nii lu mu bon bon bon ça tourne autour de six ans ah. waaw six ans et quelques. waaw six ans et quelques. non six ans et quelques. waaw six ans et quelques. six ans et quelques parce que cinq ans la def 2019 bii nii lañ defaat lañ defaat beneen beneen kii nii. état waaw sept ans la defoon waaw waaw ça fait huit ans voilà ça ñun tey jii waratuñu am problème mu ndox tey jii nii waratuñu am problème mu ndox. surtout problème boo xam te ne da lay dal a chaque année chaque année chaque année chaque day ñëw chaque année day ñëw. yow ñu ne non contrat bi nii sax ñu ne ñu jël contrat bi jël ko ko jox ko ñeneen. tey jii ñu ñoo taxoon duñu wax ne ne dañu am problème mu ndox. loolu nit mënuñ koo concevoir ba pare nga jël ndox mi du ko def ci ay ay mbànd ay mbànd ay mbànd citerne mbànd yooyu xam nga ne da nga maam moom lañ def ndox pour def ko leneen ah nga jël ko du ko jox population bi na yenn a accepter ah, xam lu gën a garaaw euh. xam lu gën a garaaw loolu laay wax Sénégal mooy population boo ne moo gën a subir ci population àdduna xam la parce que nga population Sénégal dafa tàmm subir chaque jour dañ koy loolu yoo xam ne antenne ko te chaque jour dafa am benn moobu Sénégal ay tàmm yàlla baax na xam la loolu mooy suñu courage xam la mais la fekk nga am tool comme ni nga wax ne Abdoulaye Mbaye xam la mais boo amul tool tool doo bay xam nga soo soo xoolee chaque jour ñun dañuy préféré di ñu teg li nga xam te ne antenne ñu ko sax xam la mais chaque jour da ngay yeew rek ne garaawul yàlla baax na xam nga mais ñoom il est temps la mais il est temps il est man dégg la man man manuma loolu de manuma loolu de xam nga après benn affaire bu ndaw ngay def yi nga guuxaloon yëpp lañ lay yàgg dëgg la mais loolu la genre yooyu amoon xam man dama leen ñaan ngir boo fi jógee même kii ba mu ñëwee kat réglé na lii quoi ba mu mat parce que ñëpp xam nañu état continuité la kii dafa war a ñëw def lii kee ñëw def lee kee ñëw def lee kee ñëw def lee Sénégal après après dina émerger xam la mais Sénégal soo xoolee statut fu ko Ablaye Wade xam la ça n'a bougé d'un mètre qu'on dit la vérité quoi amul amul benn dox bi nga xam ne Sénégal dox na ko tànk jéego ba ngay sentir yow au moins yow tu as avancé au contraire chaque jour ñi nga xool mooy lu jibaa di wax chaque jour ñi nga xool néew doole ñi ñi leen gën a buntu xatal quoi di gën a ak ñoom xam nga dinañ gën a teg xam la tey ñu nekk si kaw pour man barki yàlla ñoom ñooy problème Sénégal Sénégal amul problème jaaykati ambulant amul problème menuisier am xam problème la la am problème dirigeant ñu nekk ci kaw xam la ils ne sont pas à la hauteur xam la te il est temps que ça c'est ñu xool ñen ñoo nekk à la hauteur ñu teg leen fa ñooñu ñi nga xamante ne ñoom ñooy tax Sénégal man man fu mën a avant d'être président tu as tous les pions da ngay xam lépp mais soo nekkee président pour man après da ngay dem benn maa da ngay man lu tax gars doon tuune man pour man dafa am il y a autre chose quoi. dañoo bañ seen askan bi kese xaalis ay lépp ay milliards kërëb kërëb am yërmande si askan xam na yow nga bokk sa papa fii sa yaay fii la juddoo sa maam fii la juddoo xam nga te say doom fii lañ nekk comprendre la yërma maanaam bëgg sa dëkk boobu noonu ngi nga war a bëgg sa dëkk comprendre la am volonté patriotisme boobu noonu gars yi di wax nii moom la gars yi amul wax naa la ko fii nee naa la seetal seetloo dara yow seetloo dara mos nga gis Sénégal sport individuel sport individuel moo xam bëre karaté taekwondo ñu dem compétition te indiwuñu médaille mos nga ko gis ah collectif nag mos nga gis ñuy dem di indi ay ay trophée comprendre la seen bopp ku nekk xamal mu wax affaire de bopp sa bopp boobu noonu xam nga maanaam di di wane ne ñun dañoo bëggante suñu biir ci kaw xam nga ñun dëkk benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar fekk juróom-ñaari bopp la comprendre la gis nga tey jii nii sànq maa la ko bëgg wax si sa biir wax sànq maa la ko maa la koy bëgg wax sax sa biir wax gis nga ñun bu ñu sonal ak ay débat technique tactique affaire yooyu de état bi chaque fois mu ngi woo gars dañuy ñëw ay débat d'idée débat technique tactique ñu ñun soxlawuñu technique soxlawuñu tactique xam nga lañ soxla xam nga xam ñu lan lañ soxla suñu xaalis a ngi nii suñu carte a la suñu xaalis a ngi nii chaque dañuy fay dañu war a am ndox chaque jour comme la ay lii moo tax amoo ndox lii amoo suñu yoon nekk si dañoo am war a am ndox bàyyi force suñu xaalis a ngi nii dañuy fay courant chaque instant comme lan la dañu war a am courant par bàyyi force comme la loolu moo fi nekk ko xam nga mais ay débat technique ay débat tactique yooyu noonu moom moo fi nekk comme ni mu koy waxee collègue eh, débat technique débat tactique yooyu ñuy def c'est normal ce sont des théoriciens fekkente ni ay diplôme la on a des gens bardés de diplômes qui nous dirigent mais incapables de trouver des schémas techniques tactiques précis palpables yi nga xamante ni dañuy réaliser mais da ngay xool sa président bi fi toog 2012 jox nañ ko 2300 milliards 2013 ñu jox ko 2453 milliards 2014 ñu jox ko 2287 milliards 2015 ñu jox ko 2869 milliards 2016 3000 22 milliards 2017 3360 milliards 2018 3709 milliards 2019 4000 milliards projet 2020 dugg na mais boo xoolee bi nga ko li nga ko jox 2012 ak léegi ça fait 25000 milliards mënoo am ndox bu baax mënoo am courant après ngeen ma bëgg wax ne ni kooku noonu am na xam-xam ngeen bëgg ma wax noonu kooku c'est un compétent lan moo fi baax. béykat yaa ngi jooy courant amul ndox amul lekk sax amul nga ne bu dëkk bi day avance fa la ñuy dem su ma koy wax suba day naa ma non non non non dugub bi du ñu dem fenn parce que benn ñi ñuy diriger baaxuñu ñaar ñun population bi baaxuñu bëggantewuñu on ne s'aime pas on se di pas la vérité ku nekk day toog place am naan waxoon naa ko le président il a tous les pouvoirs. non attends bàyyi ma ñëw le président si biir constitution boo xoolee loi yeeg yooyu yëpp le président il a quasiment tous les pouvoirs et tous les droits il a tous les pouvoirs tous les droits et quasiment aucun devoir tey jii président day ñëw toog bu moo xam bu saax saax président bu mënti doon bu ñëw saax saaxee Sénégal day dem yoonam dara du ko si fekk lan la ñuy wax dañ koy poursuivre en cas de haute trahison te c'est même pas défini haute trahison définir la mooy haute trahison comme président nan lañ koy lu fu def dara ah non loolu du duñ ko def si dara mu saasaaxi dëgg bi mu def lu mu dara du si fet léegi la léegi la force force bi ñuy wax léegi da ngeen naan président yow da ngay dégg si boo ubbee ron ond rajo yi nga seetaan télé dégg ñu naan décret bi président bi jël na ko mais décret bi dañ ko nëbb mais kan moo ko nëbb ministère bi jaar décret bi fa la jaar président bu jël décret après daa am mu jaar surtout ñu ko nëbb léegi da nga daan président baaxul ak ñi muy àndal da koy dégg si média yi partout léegi après tu te demandes que ce pays là va aller du dem fenn par rapport ak euh, Cheikh bi lu mu wax excuse par rapport a Cheikh bi lu mu wax léegi mooy bi ngeen ko dóoree seen condition yi ba mu ne ko euh, yàlla yàlla bay sa tool nga ne ko day fekk nga am tool gis nga tout sénégalais qui est né sénégalais képp kuy sénégalais tu as le droit d'avoir la terre am nga droit dem ñu bindalu la bu ñu suuf Sénégal état Sénégal jox la suuf loolu da nga ko am droit boobu da nga ko am en tant que sénégalais du question da nga war am ñàkk am xaalis rek pour am suuf ah dem da ngay dem liggéey am sa benn 20 millions yu teg la dil suuf xam nga ñoo lay teg dil ñu dul ñuy am droit yi mooy li ma la doon wax keroog rek. les gars yi dañuy ñëw naan ñu scientifique yi daa nga jàng képp kuy sàcc doo déggee ñu ne la ki sàcc xaalis la c'est parce que dafa jàng ni ñuy sàccee xaalis sàcc katu courant la. dafa jàng nu ñuy sàccee courant sàcckatu ndox la dafa jàng nu ñuy sàccee ndox qu'on se di la vérité bu ñu nëbbantoo loo xamul mun a wax sàcc bismillah c'est que li ngay wax rek moom moo nekk quoi dégg bon am na loo xamante ne yoro yoro potu ndaal dem sa ndaala taxul nga naan am na am na yenn yoo xamante ne war nañ koo mën a war nañ koo mën a xoolaat avant ñuy def suñu yenn suñu am na avant ñuy def seen yenn décision yi am na avant ñuy def seen yenn décision yi war nañ koo xoolaat c'est que l'état du Sénégal ñun suñu priorité moom mooy demander waruñ sax di demander suñ tollee ci suñ tollee ci euh, gouvernement boo xamante ne mu ngi liggéey waruñ sax di demander maanaam suñu suñu suñuy ñaxtu suñuy problème dañu ko war a résoudre nan la koy résoudre ak fan lay jaar pour résoudre kooku moom kese moom moo am te moom kese moom moo ko parce qu'il a tous les moyens pour le fer tey jii nii ñun ñu ngi jooy ay ay ñu ngi jooy wàllu ndox ci jamono juñ toll nii nii nii dèjà dèjà xoolal rek fu mu toll nii nii suñu suñu maire suñu yaay yi yore seen pot yore yore seen siwo ñu yore seen seen gurtu dem ci biti di ut ndox ci jamono ju toll nii nga wax ne yaa ngi wax émergence émergence d'abord lan lay kii émergence coronavirus bi lan la ñu jàngal c'est que maanaam lépp loo xamante ne ne ne askan bi moom lay jooy mooy la population en tant que telle da nga cee war a taxaw du question ne da nga war a tabax lii wala danga nga war a tabax lee wala war a def nii nangam na déedéet dafa tabax dara lu yegg xanaa du question du question ay tabax ak leneen ak leneen eh, askan askan bi moo soxla lii nii da nga ko dañ cee war a taxaw askan bi fu mu toll nii dafa soxla ndox danga ko war a taxaw jàppale ko ba ndox foo xamante ne yaakaar na ko fa rek pour war ko fu mun a am rek mu am ko fa surtout foo xamante ne période bi yaa ngi wax ay affaire corona tey jii nii ñuy soxla ndox mënuñ koo fexe ba am maire yi ci biti di di di di rang ci ay ay ay citerne camion citerne